li ngeen wax ni bis boo nee ma am na texte bu ko interdire. Amadou boo nee ma am na texte bu ko interdire Amadou y a pas de problème bàyyi ñu avancer. c'est Amadou ñu ñu ñu ñu mhm. euh, par euh, le coût de la vie. waaw tey gis naa une note d'alerte de la de la de la banque centrale sur la situation de de de, l'économie. Mhm. daaw. Euh, Moustapha bi mu demee Paris jëloon na ay enga bi mu demee euh, Washington euh, jëloon na ay engagement pour réduire le déficit budgétaire mm-hmm. loolu waroon a induire le retrait de la subvention dans certains secteurs prioritaires mm-hmm. président Diomaye promettoon une réduction du coût de la vie mm-hmm. on on dira que Euh, il encore ya yàggul bi mu ñëwee ak léegi mais bu ñu xoolee la situation des finances publiques euh, marge de manœuvre bi nga xam ne euh, état du Sénégal amatu ko en termes d'endettement bu ñu xoolee euh, la posture du FMI qui nous tape sur les doigts pour la réduction du du du déficit euh, budgétaire bu ñu rappelé waatee tous les engagements yi Sénégal jëloon pour réduire le déficit Euh, est-ce que aujourd'hui il possibilité est-ce que vous avez la marge de manœuvre pour matérialiser cette promesse de réduction euh, du coût de la vie waaw euh, coût de la vie c'est l'une des priorités kooku dañ ko ériger en priorité seulement dafa am bi ñuy def comparaison entre le président Macky Sall bi muy soog a ñëw au pouvoir et cetera ak ñun dal ñu ci àndal parce que il est très facile pour un gouvernement mu def ay re allocation budgétaire fu mu waroon a construire ay école ak ay taleeg yooyu yëpp mu ne bàyyi ma jël ko subventionné ñu ne wàññi naa ñu toog même pas un an deux ans gis nga le les prix bañ ko wàññee ak léegi dafa mel ni dafa doublé kooku c'est pas une bonne politique dañ ni la ñii ñu ngi soog a ñëw te bul fàtte ni il continue avec le budget bi ñu fi fekk l'exécution du budget bi ñu fi fekk réunir nañ acteurs yi bul xool réduction bii ñu bëgg a def te dina am dina nekk loo xam ni dafa durable parce que c'est ça l'intérêt c'est pas d'en faire benn coup médiatique nga réduire ko pendant six mois en injectant énormément d'argent wala wala nga ni xaaral nga nga privé wu de recettes budgétaires de recettes fiscales plutôt défiscaliser à tout va bu kenn fay fexe leen rek mu wàññeeku. y' que le riz nga ni j'aurais tenu une promesse électorale mais dans six mois dans un an prix yi nga wàññee woon triplé ñu nekkuñu ci perspective boobu da ngay réunir acteur yi xool filière bi jàng ko xool fan nga mën a defee la réduction des coûts. Ça, parce que parfois fait. intermédiaire yi nekk rek ci benn secteur mën nañu renchérir un coût de vingt à trente pour cent. donc ci politique boobu nga tout en sachant que li ma la wax on exécute un budget boo xam ne dañ ko fay fekk amoo assemblée nationale mais de toute façon les premières notes que ce soit bor yi nga xam ni fay nañ ko dans l'agriculture bourse yi nga xam ni gis nga cumul bi nga xam ni war nañ koo fay cumul bourse te yooyu moo waroon nekk le débat comment ces gens là yoo xam ne dañ doon wax bu ñu yéegee état bi day affaissé wu complètement ce sera le chaos en moins de cinquante jours ils ont réglé la dette bi ñu yoree loon pendant des années ñoom ñu fekk ko fi c'est pas dette boo xam ni état du Sénégal moo ko yoreel c'est le régime moo ko yoreeloon ay semenciers ñu fay ko. c'est quoi la différence euh, c'est état du Sénégal wala le régime non maanaam <laughs> bor la boo xam ne da nga ko fee fekk su la neexoon nga bañ ko def priorité. non c'est l'état du Sénégal et c'est pour cela que vous l'avez pris en charge. parce que l'état c'est yaa ngi yaa ngi bëgg a ñëwaat ci sa amnistie fiscale bi. mais yow promesse nga am c'est l'état du Sénégal promesse ah. bref donc nga ni comment cet état en ce laps de temps moins de cinquante jours pour former un gouvernement ak léegi nañ. boru semencier yépp annoncé une bo une baisse conséquente intrants yi ak semence yi fay bourse yi fas yéene attaqué benn par benn le coût de l'énergie attaqué ko benn par benn mais pas dans une vision populiste wala électoraliste daat mi leen kaay leen ma wàññi leen ko tey suba ñu yokkaat ko moo tax ma ne la le coût de la vie dina wàññeeku mais durablement mais dina wàññeeku ci ban délai parce que parce que euh, bi ngeen ko doon annoncé da ngeen doon wax boo leen ñëwee euh, il ferait partie des premières Mais mesures. a est à cinquante jours Ousmane Sonko disait ñu ne ko non réalité du pouvoir mu ne moom gëmul réalité du pouvoir. bu ñëwee il va baisser le coût de la non non non non non non bu ñu éterniser wu wu. <laughs> di ngeen ko wàññi donc ciy éterniser wu. dans combien de temps cinquante jours lañ fi defagum. waaw mais mais mais ngeen koy wàññi li ma la wax mooy bugg ñoo koo wàññi tey par injecter de l'argent du subventionné à tout va moo koy bëggee def mooy. foo waroon ngeen mënatul sax FMI du leen ko permettre. non ñun moom xam nga ñun cycle vertueux bi. ñu dugg mënatul leen moom FMI du leen ko permettre. soxna si. waaw ah. FMI duñu ñu ko permettre nee naa la bu defuñu ay relocation budgétaire génnewuñu ay perte de recette fiscale on veut une politique responsable. mooy bees boo xam ne suñ ko beesee tey. doo toog structurel pas conjoncturel mu ngoog doo ko def comme ñoom ni mu def daal ni j'ai tenu une un kii électoral euh, euh, euh, une promesse électorale après nga ni mais bees bi dina am bees bi dina am hmm. et dina am de façon significative donc les denrées l'eau et l'électricité man de li ma a mën a wax kooku ce sont hmm. des objectifs réduction coût bi le premier discours du président Diomaye Faye Bassirou Diomaye fay je pense que loolu nga ci njëkk a dégg il s'y est engagé le premier ministre Ousmane Sonko s'y est engagé te boo déggee gouvernement bi li ñuy liggéey yëg séminaire yi ñuy def rencontre yi ñuy def kii interministériel yi lépp ban tempo lañ ci wax réduire réduire. mais mais mais mais mais, mais, mais les... concrètement mm-hmm. euh, Amadou. Mm est-ce que gouvernement bi tey ak situation économique bi est-ce que am na levier yi pour mën a matérialiser. cette promesse de baisse du coût de la de la de la de la de la xam nga. Mhm. Euh, maa ngi lay rappeler tout à l'heure dafa amoon une promesse euh, boo xam ne dañ ko étendre sur trois ans euh, État du Sénégal waroon retirer la subvention chaque année mu war a retirer cent milliards. Mhm. bi mu retirer cent milliards daaw moom moo indi l'augmentation de l'électricité ren mu waroon retirer waat cent milliards l'objectif c'était à terme. d'ici 2025 de réduire le, le, le déficit à 2,5 engagement yooyu état daf ko daf ko daf ko daf ko jël ngeen ñëw fekk fi un budget déjà un budget ouais, déjà en cours d'exécution ensuite euh, état du Sénégal aujourd'hui sa marge de manœuvre euh, ci wàllu endettement ci wàllu mobilisation euh, de recettes à l'extérieur vraiment elle est vraiment réduite wow. est-ce que 2024 bi c'est pas perdu perdu non munoo ah non mais comment on, comment on peut dire que 2024 yi perdu 2024 nan la ñuy perdu on est mois de. non je veux dire est-ce que bés bi mën na intervenir. en 2024 bi dina mën na intervenir gis nga gouvernement. dafa mën na intervenir en 2024 waay mën naa intervenir en 2024 ñi nga xam ne en 50 jour ils ont réussi tal waxoo fa malgré les difficultés fan la ñu nan la ñu def ba fay euh, les semenciers malgré les difficultés nan la ñu fay fay ba def. Euh, ba fay la rappel des bourses est-ce que ñu ngi fay salaire yi au Sénégal te cinquante jours nga fi def il faut nga gëm loolu quoi parce que un y a des listes nga fi fay Sénégal fay salaire kay Sénégal moom loolu du problème no non mais amul gouvernement bu fi mës a ñëw toog weer bi dee amul lu mu fay déggoo moo tax ma ni la ah, non ñi annoncé woon nii ñun moom du waxuma la quinze jours c'est-à-dire li ma li am solo nga jàpp ko mooy li ma lay wax nii gouvernement dafa nekkul dans des annonces populistes dëkk bi yaa a des niches fiscales yu fi bëri dégg nga fii ñoo xam déjà dootoo fi déggati dépense yàq xaalis gis nga déjà loolu jarul xeeb lii Cour des comptes ak rapport de contrôle yi génne ce n'est absolument rien par rapport a yeneen yoo xamante ni c'est passé entre les du filet il y a des milliards et des milliards yoo xam ne mën nañ ko sauvegarder rien que en rationalisant déjà dès maintenant la commande publique déjà am na yoo xamante ni ay sunu alal la yaa ngi gis les sorties du ministre de l'énergie et des mine bi mu demee bu ñu la expliquer ñenn ñoo xamante ni yore nañ état bi xaalis ñoo xam ne dañ daan toog ni on peut négocier duñ ko fay donc y aura certainement ñun nu ñu gën a gëm mooy la mobilisation des recettes internes yoo xam ne ci biir réew mi la développement endogène ngay penser c'est-à-dire que toute ton énergie da nga koy def sur le développement comment mobiliser les ressources internes mais xam nga tamit c'est bien ah. Mm-hmm. euh, euh, il n'est pas question que certaines grandes multinationales yuy def du profit euh, duñu acquitté wu de leur euh, de leur de leurs obligations fiscales là où on on, on harcèle des entreprises de de de de, de médias nga xam ne mm-hmm. amuñu loolu euh, il faut que mu am benn équité euh, fiscale. Ah. mais est-ce que ragul leen tamit quelque part parce que un pays aussi. Euh, li bokk na ci ci li nga xam ne moom moo ko yor mooy les les les investissements directs étrangers oui. investisseurs yi di ñëw di choisir suñu réew di fi indi seen xaalis est-ce que offensive bi am amul noo leen koy defaree defee de manière maladroite est-ce que aussi vous ne faites pression fiscale bi euh, du yéeg et puis ñu dawloo ñi nga xam ne ñoom ñooy investisseurs yi on n'a pas augmenté le taux wala la pression fiscale. parce que investisseurs yi dañu leen di aménager des conditions des facilitations. non lii du facilitation lii mooy des dettes fiscales dues par un taux d'imposition boo xam ne da nga ko fay fekk ñoom bi ñuy ñëw xamoon nañ sa taux ce taux n'a pas bougé est-ce que ma la. yokk ñu le taux mais daf ci am man dama gis kaaw. li fi am une une multinationale boo xam ne dafa am beaucoup de projets au Sénégal. waaw dans le cadre de la mise en œuvre de ces projet là. Mm-hmm. Euh, mu bénéficier woon d'exonération fiscale. waaw. Euh, aujourd'hui ñu ñu ñu ñu defal ko redressement di ko réclamer ces taxes yi ñu ko exonéré woon mais si am na déedéet si am na déedéet état mënul fonctionner am na xaaral état mënul la defal exonération fiscale ba pare bi ci dellu si waat fii ce qui se xam nga lan la mooy ñoo xamante ni dañ leen a appliquer benn taux d'imposition boo xam ni xam nañ ko bi ñuy investir xamoon nañ dans leur euh, projet que ni ñii dañoo war a fay sauf que lan moo xew mooy dañoo war a fay ñu jàpp ni avec l'ancien régime il y toujours des arrangements possibles loolu nag bu moom mooy jeex rek yow yokkoo le taux de pression d'imposition ñëwoon ni man je passe du simple au double damay taxé non c'est quelque chose qui était dû à l'État et qui va être moom képp ngay dem jël par des gens yoo xam ni jàppoon nañ ni avec le système le régime avant mënoon nga négocier ba passer par les mailles par ay réduction excessive wala des amnisties wala des, des exonérations wala carrément ñu renoncer loolu yëpp bis bu ñu ko dajalee alors même que laala guñu loi de finance bi dëkk bi dina changer y aura déjà un une amélioration